bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati lwahmi wa akrimna bi nuuri lfahmi waftax calayna bi maxrifati lcilmi wa xassin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa alamin mbokk yi bàyyi xel ci Sud seen rajo asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ginnaaw ñu santee suñu borom subhaanahu wa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 ñi nga xam ne ñooy déglu waxtaan wi ci audio yi ginnaaw buñ ko dugalaatee ci groupe whatsapp bu almisbaax yi ñoo ngi leen di nuyu ak ñi nga xam ne dañ koy partagé bam aksi ci ñoom yal na ojo yeeg waxtaan weeg yépp fekk leen ci jàmm di leen siyaare bu baax di ñaan borom bi mu nangul ñu suñuy jaamu di ko ñaan mu jéggal ñu suñuy rëcc-rëcc di ko ñaan mu jàmmal ñu te defal ñu sutura ñoo ngi siyaare bu baax jàngkati alxuraan yi jàngalekati alxuraan yi elimaan yi mboolem ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel almisbaax baax lim juum ñoo ngi leen di nuyu di jaajëfal bu baax oustaz Alioune Mbaye ak imaam Mamar Seck ñoom ñi nga xam ne ñoo fi fanaan ci àjjuma ji di leen masawu coono fanaan bi ñaan borom bi kàtt kàttanal leen te yokk leen a defal tawféex suñu bindi fajari samedi ñi ngi ci doon waxtaane lu jëm ci wàllu saraxe ndax temub ay bis gi ñi ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu teggiin waaye ci biir jëflante yi dox ci suñu diggante dafa am jeneen tiyaaba wala jeneen jaamu yàlla gu rëy goo xamante ne moom lañuy wax saraxe nit ñi fonk nañ ko lool bëgg nañ ko lool dogon ko nag jubluwaay yenn yi yiñ ci am danga naan nit mën na cee ame tiyaaba waaye boo xaaree bañ digal la ko nga door koo def jubluwaay bi di lañ la ko digal tax nga def ko njariñ ya mën naa néew waaye ki koy def te jublu ci jaamu yàlla yiwu baree bari la ci mën a am moo tax ginnaaw bi ma waxee lan mooy saraxe ak yi nga xam ne moo ci aju ak lenn ci aaye alxuraan yi ñëw di ko soññee suñu bindu tey mi ngi war a jëm ci lenn ci xadiis yonent bi alayhi salaatu wasalaam yi nga xam ne alwaarida fi sadaqa dafa ñëw di wax ci lu jëm ci wàllu saraxe xëy na léeg-léeg nit ki war nañ koo mën a digal sarax ndax lu ëpp ci àdduna bu ko nit di def day dem xool ña am xam-xam bu màcc ca loola mu waxtaan ak ñoom maanaam mu consulter leen ñu digal ko te mooy ñu orienté ko ne ko boo ko defee woon nii boo ko defee woon nii boo ko defee woon nii ki bëgg tiyaaba itam war naa ñëw ci ti yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam te mooy am njàngaleem ak ñi koy jàngale ñu jéem koo oriente te yàlla rekk tax waxoon naa la ne sarax nit saraxe na milliard wala million ma bañ a wax milliard ndax bari na nit saraxe ñaar téeméer ëpp ko ca aw yiw ndax jubluwaay baay tax jeexital bi sarax di def ci ki nga ko jox day def jeexitalu fajug aajo ci yow mi nga xam ne yaa ko joxe yonent bi alayhi salaatu wasalaam bam ñu cay soññi daa waxoon ne ku teggil jullit njàqareem fii ci àdduna suñ borom teggil la njàqaree àdduna ak njàqaree àllaaxira te léeg-léeg nag nit ki li ko doon njàqare ci moom nga xam ne mooy problème am loole nit fajal ko ko day taxaw taxawaayu sarax boobu ak yiw yi nga xam ne moo ci nekk hadis bi ma ci njëkk indi saxaaba bu ñuy wax Saïd ibn Malik wala an ibn Saïdin al Maliki nee na Omar ibnul Xataab ista e-, istahmalani Omar radiyallahu anhu ala sadaqa nee na Seydina Omar daf ko doon liggéeyloo ci lu jëm ci wàllu asaka yi wala ci lu jëm ci wàllu sarax yi nga xam ne da koo nome istaamala nii buñ ko doon tekki dañ dañuy wax ne rek mooy jaale nii amilan ala sadaxa maanaam di dajale asaka di ko jël di ci liggéey di ko dajale di ko jox ñi nga xam ne ñoo ko yeyoo nee na ba liggéeyee ba noppi mu ñëw Seydina Omar ne ko ñi nga doon liggéeyloo fay leen ndax fay nga leen nee na ma ne ko innama amiltu lillahi wa ajri alallahi li ma doon def dama ko doon def te yàlla tax sama fay moom yàllaa may fay nee na Omar ne ko xus ma uxtiita fa inni amiltu ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fa ammalani fa qultu misla qawlika fa xaala li rasulullahi sallallahu alayhi wa ida uxtiya cheyan min xayri an tasala fa kul wa tasaddaq omar ne ko jëlal nga fay leen ñoom ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ci asaka yi daan ne ko nag li nga def nii dama koo defoon ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye yonent bi daa waxoon ne nit ki daal lépp luñ ko jox te laaju ko lépp loo xam ne dañ la koo may mën naa koo xam ne dañ la koo may te laajoo ko lew na la lekkal saraxeel lekkal te xam ne mën naa doon ab sarax ci yow ki liggéey ñu fay ko sax ndekete mi ngi saraxe aw yiwu rëy ngi ko cay fekk ci bu ñu déggee galeenu waxi xadis bi nga xam ne moom laa jàng dana ñëw ci yeneen yu gën a leer insha allahu taala am na beneen xadis boo xam ne Iyaad ibnu Ximaar al mujaa shii radiallahu anhu moo ko nett li nee na anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal saata yawmin fi xutbatihi nee ki yàlla yónni woon ci ñun sallallahu alayhi benn bis ci xutba yim doon xutba wax na ca ne wa ahlul jannati salaasa fuu sultaanin muqsit mutasaddiq muwaafiq wa rajulun raxiimun raxiiqul qalbi li kulli fi qurbaa wa muslimin wa afifun mutaafifun du xiyaal nee na bi wax na ci xadis ne aljanna ñetti kuréel yi ñoo fay nekk wala ñetti kuréel yi moom seenu dugg àjjana lu wér la mu nekk ca jiitu mooy boroom daraja buur kilifa goo xam ne dafa maandu dafa jub muqsit koo xam ne dañ koo fal dajale suñuy picc dajale suñu donc jox ko mu doon suñu kilifa waaye mu doon koo xam ne ku maandu la ba kenn ku ne la nga war a jot mu fexe ba di nga ba nga ba cey jot ku jot loo wër te jot mu fexe ba jëlee ko ci yow jox ko ña ko moom nee na ki nga xam ne mooy kilifa googu itam doon koo xam ne ku dëggu lay doon kuy dimbulee lay doon maanaam aji dimbulee ji aji saraxe ji nga xamante ne dafa dëggu ki nga xamante ne xolam dafa woyof jullit bi nga xam ne dafa fegu maanaam liggéey da koy def ngir mën a fegu ndax léeg lekk li la tax tumuraanke ba bureau bu ne nga dugg fa nañ ma baal di ñaan wala ngay wax nit ñi lu leen neex ngir dund ci ñoom wala ngay mbaxar yàpp coono yooyu ngay def boo ko seetlu woon boo ko defoon cib liggéey daa am loo xam ne doy na la sëkk ba nga xam ne dangay doon ku fegu fegu waaleel sa njaboot fegu sa njaboot loolu doy na sëkk doy na sëkk abi dharrin radiallahu anhu ci wàllu sarax nee na ay nit ci jamono yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay saxaaba dañoo ñëw ci moom ne ko yaa rasulallah dhahaba ahlu dusuuri bil ujuuri ahlu suur mooy asxaabul amwaal dañoo ñëw ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñi nga xam ne ñooy ñoo am alal ñoo am alal yóbbu nañ tiyaaba yi waaw man ngaa wax ne ñu néew doole ñi ñu ñàkk ñi ñi seen loxo jotul seen ginnaaw ñoo ñëw ci moom ne ko yow yonent bi boroom alal yi gañe nañ ñu gañe nañ ñu ndax ñoom yusalluuna kama nusalli dañuy julli comme ñun ni ñuy jullee wa yasuumuuna kama nasuumu dañuy woor comme ñun ni ñuy woore wa yatasaddaquuna bi fuduuli amwaalihim yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen wala ñu ne ñoom dañuy saraxe ci seen alal maanaam saa jaamu yàlla gi ñu rawe ba yóbbu yool bi mooy liñ yor dañ koy dimbalee moo tax kon fi mu ne ku yàlla ma ne gan li nga ganee li nga gañee ñi nga xam ne amuñ ko li nga leen ëppalee aw yiw mooy alal jooju nga di ko dépensé ci yoonu yàlla di saraxe te yàlla tax mu ne wa yatasaddaquuna bi fuduli amwalihim dañuy dimbalee ca la ci seeni alal dañ cay saraxe ca la ca gën yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne leen awalaysa qad jaala allahu lakum ma tasaddaqun ndax yàlla defalu leen yéen lu ngeen mën a saraxe defal na leen ko di mu mel ne dañ ko wax ne ko ah ñun de loolu lan la lan la ñu yàlla defal loo xam ne sarax la ci ñun mu ne leen inna bi kulli tasbixatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa kullu taxmidatin sadaqa wa kullu taxlilatin sadaqa wa amur bilmaarufi sadaqa wa nahyun anil munkari aw an munkarin sadaqa allahu akbar yonent bi ne leen bu leen yaakaar ni yéen amu leen lu ngeen saraxe am ngeen ko dangeen a yorut alal bu ngeen làmb ci seeni poos di joxe waaye bépp sàbbaal bu ngeen def bindal nañ leen ko tiyaabay ko saraxe bépp takbiir bu ngeen def bindal nañ leen ko tiyaaba ko saraxe bépp alhamdulillah bu ngeen def bindal nañ leen ko tiyaabay ko saraxe bépp laa ilaha illallah bu ngeen def bindal nañ leen ko tiyaabay ko saraxe saa yu ngeen diglee lu baax mu nekk ab sarax ci yéen bu ngeen teree bon mu nekk ab sarax ci yéen yëmut ci loolu mu ni leen wa fi buti ahadikum sadaqa ne leen kenn ku ne ci yéen bu jotee sax bu jotee maanaam bu waxtaanee ak soxnaam waxtaanu lal mu nekk ab sarax ci moom saxaaba yi daal koy posé question foofu ne ko yaa rasulallah a yati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr waaw ñun dañuy joteeg suñ soxna yi nañ ma baal am ci bànneex ba noppi di ci am tiyaaba am ci bànneex ba noppi am ci fay yonent bi alayhi salaatu wasalaam ni leen waaw araaytum law wadaaha fi xaraamin akaana alayhi fiha wizr ndax kenn ci yéen bu demoon jotee ci lu araam joteeg jigéen te takku ko wala jigéen joteeg góor te takkuñ ko ndax du ci am bàkkaar ñu ne ko ah kay dana ko ci am kay mu ne leen fa kadhalika noonu dong la mel ida wadaaha fi l xalaal kaana lahu ajr moo tax ku jotee ku la lew kula la lew dagan moom mën naa doon képp koo xam ne mën nga koo takk waaye kila lew nag mooy ki dagan ba noppi ñu may la ko nee na kooku saa yooy joteeg moom ñu bindal la ci tiyaaba allahu akbar nga xam ne dundug doomu aadama bi lépp sarax la waaye yéene yi rek moo ci am solo xadis bi njàngale mu baree baree ngi ci biir ñu dellu jéem koo setantal bi nga xamante ne ñi néew doole dañoo gis ne ñi am doole dong ñoo am tiyaaba ndax léeg-léeg nit dana ñàkk waaye ñàkkam gi jural ko mu ñénki wala mu ñàkki nga xamante ne kàddu yu ñaaw la bëgg a defee moom saboote ñi am la bëgg a defee fu mu dégg ñu ne nit mayee na fa nangam mu ne boo demee alalam jooju fi ko jëlee leerut boo demee diw day ngistal nga xam ne yow boole nga defoo ngir am tiyaaba ba noppi di bakkaaru ci di sikkal ñiy def ëpp naa def yonent bi loolu la wax gaa yi ni leen bu leen teg seen bët ci ñi am li ñuy def ndax bu dee la ñuy saraxe ña ngi koy am tiyaaba yéen itam góorgóorlu leen ndax gannaaw sàbbaal boo def am tiyaaba ginnaaw julli su baaxiyaatu saalihaat yi ngay def nga am ci tiyaaba euh, nga xam ne ki am mën na koy def ba noppi di saraxe am ñaari moo tax ki am bu mu yem rek ci ñëw ci jàkka ji di naafila waaye nay boole nag jël ci alalam di dimbulee ndax naafilaam googu daa am solo ba noppi nag na na fonkaat jaamu yàlla bu baax ndax borom bi subxanahu wa te teggil na ko genn gàllankoor ci ñàkk a mën a jaamu yàlla waaye teg na ko fitna boo xam ne mën naa dox digganteem ak jaamu yàlla. waaw ndax léeg am doon fitna waaye ñàkk itam léeg mu doon fitna bu mu ci man di doon ki ñàkk te amug wér mën a sàbbaal boroomam mën a digle lu baax mën a tere bon mi ngi am tiyaaba saraxe lu am solo la borom bi nee na yëngutu yi ngeen di yëngutu yépp noppi naa ngir di leen ko bindal tiyaabay sarax ba ci sax koo xam ne jote naak soxnaam nga xam ne kon jubluwaay bi mu ci am te muy e, e, tiyaaba ji nga xam ne moo ci nekk la ca neex bakkanam tegtalewut na da cay am ak pay ndax yonent bi nee na ku jote woon ak ku la lewut ku daganu ci yow nga am ca bàkkaar kon ku jotee ku dagan ci yow nga am ci yiw ku jote ku dagan ci yow nga am ci yiw saraxe am na solo lool yal nañu yàlla may ñu bokk ci ñi nga xam ne danañ saraxe te jëmmam tax beneen xadis bi may indi mu jëm ci fànn googu saxaaba bu ñuy wax jaabir radiallahu anhu moo ko nett li nee na anna nabii sallallahu alayhi wa sallam daxala ala ummi mubassirin al ansaariya nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa dugg dafa ñëw fekk ki nga xam ne mooy ummi mubassir bokkoon ci waa saar fii naxlin lahaa mu ne ca tooli tàndarma yonent bi daal di koy laaj man xarasa haada naxl am muslimun am kaafir yonent bi ne ko kan mooy jëmbat fii tàndarma yi kan mooy bay tool bi ci misaal kan mooy bay tool bii ki koy bay ab jullit la wala dub jullit ndaw sa tontu umumu basirin ne ko bal muslim ab jullit la kay yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax wax ju am solo wax ju am wax ju am solo mhm. Baay Ibra Faal Touba Gueye ak baykat yi nga xam ne ñooy bay ñëpp tey sonn ci mbayum noor ak mbayum nawet ak nangoo liggéey nit ñi di ci jariñu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne la yaxrisu muslimun xarsan wala yasra'u zar'an fa yakula minhu insaanun wala daabatun wala shay'un illa kaanat lahu sadaqa sallallahu alayhi wa yonent bi nee na ab jullit du jëmbat garab wala mu bay ab tool nit lekk ca mbay ma wala picc lekk ca mbay ma walaw fas lekk ca walam xar lu dul ne lépp luñ ca lekk sarax lañ ko koy bindal nga xam ne yow miy jëmbat ak màngo wala ngay bay toolu dugub wala ngay bay leneen picc yi ñëw tong di lekk ci ñax mi jëmbët gi nga ko jëmbat di ko suuxat di bay ñi ngi lay bindal tiyaaba ca la ca picc ya di lekk sarax lañ la koy bindal yaa ngi saraxe euh, nit lum ca lekk mu nekk sarax ci yow lu ca caw fas lekk walam xar mu nekk sarax ci yow léegi nag la nga cay amee nag ci bénéfice door a ñëw nga xam ne ku xam loolu daanaka euh, bay day nekkaat geneen jaamu yàlla goo xam ne moo ci nekk ba noppi encouragé waat nit ci liggéey sallallahu alayhi wa sallam Eh, abi masxuudin al ab saxaaba la nee na bi alayhi salaatu wasalaam nee na innal ida anfaqa ala ahlihi nafaxatan wa huwa yaxtasibuha kaanat lahu sadaqa nee na bi alayhi salaatu wasalaam nee na ab jullit bu joxe dépense waa këram waaw bu xëyee joxe dépense boo xam ne moo ko liggéey fàggu ko ci loxoom mu nekk ab sarax allahu akbar ndeke dépense bi nga xëy jox sa waa kër sax dañ la ciy bindal tiyaaba dañ la ciy bindal tiyaaba nee na mu far nekk ab sarax boo xamante ne da koy ñeel allahu akbar moo tax mag ñi daan nangoo ne dépense di joxe dépense boo xam ne ni mu toll ci lim ñi ciy lekk kenn xamul nu mu toll boo demee ci marché yi wala nga dem ci atelier yi wala ci garage yi yi ak yeneen garage yi da gis añ jot nga gis koo xam ne boole jóge këram booli nga xam ne ñiy ñëw ak ña dëkk ak moom bu dee ci marché yi léeg-léeg gardien yaag ña toogoon ci buntu baak ña ca yam ak doxandéem yaag ñëpp ay bokk sukk lekk loolu moo amoon bu njëkk jàppal ne tibb ci waaye tibb sex rek yaa ngi am li nga xam ne mooy saraxe joxe ñam baax na lool joxe ñam baax na lool bu njëkk dañ daan am boolu gan boolu gan léegi nag xaw ma ba xam Ndakaaroo ngi am boolu ganam déet ndax gan ñi bareetuñ ndax demalanteetuñ dañuy daje rek waaye bu dee ñun ca kaw ga daan na am boolu gan daan na am néegub gan mhm. waaye tiyaaba moom nit mën na koo amee ci fànn googu waaye dépense bi nga jox sa waa kër tax dañ la ciy bindal sarax kon naga nga góorgóorlu ci nangoo joxe dépense tiyaaba yu baree baree ci nekk waaye yiw wu baree bari la ci borom bi subhaanahu wa taala dikk ñi nga xam ne ñoo koy joxe beneen xadis bi may indi maaz ibnu jabal radiallahu anhu ab saxaaba la moo ko nettali nee na yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba ma yónnee baasani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lii ko waxoon ba muy dem da ko waxoon ne innaka taati xawman min ahlil kitab yaa ngi dem ci nit ñoo xam ne dañoo bokk ci waa ahlul kitaab boo demee na leen woo ci ñu wéetal yàlla te nangu ne man muhammad yàlla ma yónni mooy nañ dugg ci diini ci buñ nangoo na leen jàngal na leen xamal ne yàlla farataal na ci ñoom juróomi julli buñ nangoo na leen xamal ne yàlla farataal na ci ñoom sarax boo xam ne asaka sarax la day saraxu force yàlla farataal na ci ñoom sadaqa muy asaka asaka jooju dañ koy jëlee ci ñi am di ko jox ñi ñàkk buñ la toppee ci loolu na nga ñoom ca na gën a tedd ca nañuy àndeek nit ñi waaye bu ñu joxee asaka it nañ joxe wala bu ñu saraxe nañuy saraxe ca la baax ca seeni alal daal di ko cay tegal wax ju am solo ne ko na ngeen moytu ñaanu kuñ tooñ waaw kon nañ moytu tooñ tooñ baaxut tooñ baaxut nañ moytu tooñ yonent bi nee na kuñ tooñ diggam ak yàlla kiiraay doxatu ci waaw kuñ tooñ diggam ak yàlla kiiraay doxatu ci mi ngi ci connexion direct moo tax léeg nga tooñ nit mu ne ci yàlla nga yaakaar ne daa yembare bu siggee ne yaa rab bi alkande mën naa wàcc ci kaw yow aji tooñ ji te ku tooñ rek amatoo gàllaaj ku tooñ gàllaaj moo tax mu ne ko wattaqi da'watal mazlumi fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab diggante kuñ tooñ ak boroomam dara doxatu ci bu wooyee yàlla yàlla wuyu ko bu wooyee yàlla yàlla wuyu ko tooñ baaxut kon mbokk yi sarax am na solo lool maa ngi doon wax ne ba ca ëpp njariñ mooy bi nga xamante ne day jariñ ki nga koy jox sarax bi ëpp njariñ mooy sarax bi nga xam ne day jariñ ki nga koy jox sarax bi ëpp njariñ mooy bi nga xam ne bi ko nit ki def yàlla doo nga tax sarax bi ëpp njariñ mooy sarax bi nga xam ne nit ki ko def da koy nëbbu ba loxob du yëg li loxob ndeyjooram di joxe waaye sarax bi ëpp njariñ mooy sarax bi nga xam ne ki koy joxe li muy joxe da koo bëgg li muy joxe lum bëgg la gis naa ñoo xam ne dañuy dem ca euh, euh, ca pharmacie jël xaalis jox pharmacien bi ne ku fi ñëw di jënd garab te ami jafe-jafe fayal naa ko na nga jël jox ko am ñoo xam ne dañuy dem ci bitig ba jënd saakub ceeb samp fa borom kër bu manqué ceeb bu ñëwee di jënd ñu ko ci gis naa sax euh, koo xam ne dañ ma ko nettali ci sama barab bee may faral di toog lamiral ci ñoom sérif jonn ak ñoom dia euh, koo xam ne mën naa ñëw bàyyi fa xaalis bu bari nekko ko doxandéem yi nga xam ne dañ fi ñëw di lekk si te léeg-léeg du ñu am lu ñu fayee fayal naa leen bu noppee rek bindal ma ko wala mu ne dee ma ko bindal ci sama kaye bi danaa fi jaar fay ko te doon ko jub nga xam ne kenn du xam kan moo la fayal waaye moom def na ko te yàlla tax loolu li ci nekk ci aw yiw kenn xamul num toll kenn xamul num toll li ñu yàlla wàcceel ci suuf si doy na buñ ko bokkee rek ñëpp am jàmm waaye bu ñuy arnaake bàyyee arnaake ak ñi yërëmtalu te yërëmtalu wuñ ñiy feebar feebarlu te feebaru wuñ sàkku ndimbal te jublu ci ay tappale bu boobaa jàmm ne ñooy ñuy dimbalee gën a am sawar ci dimbalee gën cee am yaakaar borom bi nga xam ne kum dimbali nga mucc na ñu boole dimbali na ñu boole sàmm ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen jéggalu di leen jéggal di ñaan borom bi subhaanahu wa taala mu boole ñu jéggal ñaan ko mu defal ñu sutura fii dunya ñaan ko mu defal ñu sutura fil axira ñoo ngi jaajëfal bu baax soppee almisbaax yëpp ñu ne ci biir réew mi ñu nekk bitim réew ku lim juum dellu di jaajëfal baax a baax suñu jigéen docteur Ana Dia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 kama la nihaaya li wa adada kamali seen mbokku Mbàkke Sylla ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu